montage nano c'était un policier chauffeur bi ak yooyu. ku mën a taxaw wax loolu. condamné woo acte boobu bokk yow daf sa atte dafa dafa war a méngóog atte bi nga xamante ne moom la ñuy atte ki nga xamante ne dafa jël ay cocktail molotov sànni ko ci bus ba rey fa ay doomu aadama. ces yi nga xamante ne dañuy dañuy def la manipulation di di wedd li nga xamante ne réalité la fait la fait yoo xamante ne fait yu la ñëpp a ko war a déplorer nga taxaw ne amul état dafa war a traquer ñooñu si seen wàllu bopp. voilà salaamaaleykum mbokku internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ñu am mbégte tey dalal fii kii di euh, monsieur Konaté mu nekk le président de l'association des anciens militaires retraités du Sénégal libérés du Sénégal donc y une influence mais donc ñi retraité bokkuñ ci yéen quoi <laughs> voilà monsieur Konaté ñoo ngi lay nuyu di la jaajëfal. merci euh, mon frère Kandé maa lay nuyu bu baax. di nuyu sa technicien yi également ma jàkkaarloo ak euh, sa internet yi lay suivre di leen féliciter bu baax di leen encourager ñaan lépp lu ñu fi wax rek yàlla doon loo xam ne lu amal mi solo la. am association boo xam ne bu am solo la parce que euh, dëgg naa solo information yi ma am ci sa association bi c'est au niveau national et vous faites euh, des centaines de membre e ñu nekk ci contexte boo xam ne c'est un contexte de violence. parce que quoi que l'on puisse dire aussi les anciens militaires ñi nga xam ne dañ leen libéré ils sont dans la société donc c'est des éléments qui savent manier des armes c'est des gens qui savent utiliser en tout cas euh, certains outils te ñu nekk ci période boo xam ne quand dëkk bi yëngu na lool alors Sénégal di dund ay pratiques yoo xam ne daanaka xamuñu ko woon fii ci Afrique ou particulièrement fii ci Sénégal mooy ay cocktail molotov te xam nañu loolu euh, c'est une technique militaire Euh, déjà yéen ci seen biir association est-ce que yéen ngeen di waxtaanee sujet bu mel noonu. Euh, merci beaucoup euh, damay profité rek di nuyu képp koo xamante ne ancien militaire ga que nga nekk invalide nga nekk retraité nga nekk militaire libéré di profité rek di nuyu les force de défense et de sécurité parce que nag c'est vraiment le moment pour les population rendre ñooñu noonu hommage compte tenu de de l'excellent travail bi nga xamante ne moom la ñuy abattre. comme li nga ko waxee rek l'association moom depuis sa création ñun on dans les régions dans les départements et tant d'autres dans ci yeneen localités yi nga xamante ne en tout cas ci commune lañ nekk yu gën a arriéré sax ci ci Sénégal mais chance bi ñu am léegi pour ñëw tuuti ci sa question bi nga xamante ne dafa nekk actualité euh, leen rek laa ci xaw a rectifier tuuti mooy cocktail molotov moom lu illégal la maanaam loolu moom jàpp naa ne militaire libéré sax wala boog militaire du ko sax waxtaanee parce que tout ce qui est illégal jàpp naa ne warta bokk ci pratique u militaire warta bokk ci pratique u keneen waxuma la koo xamante ne jot naa def armée donc contexte bi nag moom dañu ciy profité rek di euh, jaale ñi nga xamante ne dañ cee ñàkk seen bakkan seeni famille ñoom ñëpp di leen masawu di ñaan yàlla ñi nga xamante ne génn nañ ci àdduna yàlla yërëm leen tàbbal daw si blessé également yàlla may leen ñu wér dellu seen sago di ñaan yàlla état du Sénégal gën dëgër parce que c'est le moment quand même dëgër ñi nga xamante ne ñoo def acte bii nga xamante ne terrorisme munu ko weesu d'une extrême gravité état na leen traqué comme ni ko le ministre de l'intérieur waxee te population bi également dañoo war a participer ci li nga xamante ne moom mooy dénonciation bi foo mën a nekk quartier boo mën a dëkk boo gisee ay actes yu suspect jàpp naa danga ko war a dénoncer bu fekkente ne mënoo koo xeex au minimum nanga ko dénoncer pour que ñu mën a rétabler l'ordre bi foofu parce que le Sénégal c'est notre Sénégal amuñ fu ñu jëm fii la ñu am donc dañoo war a préserver sa stabilité ak tranquillité tranquillité bi donc. donc mais est-ce que donc li xew fii ci Sénégal euh, tu vois pas des tactiques militaires ci jëfin wa. xam nga l'armée d'avant du ma ne amoon na ay temps. du ma ne dafa bonoon mais amoon nay temps agression bu metti bu musaan am seen xel ci militaire libéré la ñëpp doon dem ñu bu njëkk ba sax dañu doon wax ne bu sax ñu militaire yi ñu leen di libéré ñu leen di tàggat ba pare di leen mais jamono jooju ak jamono ji bokkutul militaire libéré yi léegi ils sont patriotes ils sont républicains ay nit nañ loo xamante ne au moins te également armée libération léegi dafa am ay mesures d'accompagnement ak ay suivi même bu fekkee ne dañuy faral di wax ne ñun chaque fois dañu koy wax daanu dajul fépp parce que on cherche toujours à parfaire à avancer en faisant des propositions yu nu mel mais jàpp naa ne li nga xamante ne moom la ñuy war a saluer ci taxawaayu militaire libéré ci yu nu mel kër sax ci boppam mënoo contrôler sa njaboot yëpp. xëy na peut-être su fekkee duñu wax ne amul waaye ñun de sant nañu yàlla au sein de l'association sant nañu yàlla bu baax ba nga xamante ne ñun association bi déjà militaire bu yëg yaa ngi ci jàpp nañu yaa ngi ko yëgul jàpp bu koy yëgul également jàpp na ñaa donc képp kuy militaire libéré ñun suñu si suñu njaboot nga bokk mais ay la yéwén ñun chance bi ñu am mooy xëy na peut-être mën nga ci dégg mais boo ci déggee benn dootoo ci gaaw a déggaat beneen donc loolu am na lu muy signifié am na lu wane na aujourd'hui que militaire libéré seen taxawaay nekk na taxawaay boo xamante ne seen taxawaay dafa nekk loo xamante ne lu participative la loo xamante ne seen loxo mu ngi toujours à la patte dans la patte pour jéem a fexe xool également naka la ñu mën a jàppee ci li nga xamante ne moom mooy développement ak avancement wu Sénégal l'autre chose mooy il est important de féliciter d'encourager l'État du Sénégal par rapport à ses efforts minimes soit-il nag moom mu leer ñun sax dañuy fustiger parfois ne affaire dafa des dafa manqué mais à travers l'agence pour la réinsertion sociale des militaires ñu ngi gis ne y un travail énorme qui est la cependant li ñuy wax rek mooy nañu gën a góorgóorlu accompagner leen par rapport ak yi nga xamante ne moom mooy parce que il forme mais formation yooyu noonu dafa war a ànd ak suivi étant donné que état teg na ay leviers yoo xamante ne pour accompagner la femme et jeunes militaires libéraux ils sont jeunes et il des femmes yoo xamante ne jot nañu def quartier. donc loolu su fekkente ne sukkandiku nañ ci loolu yëpp espoir boobu nga xamante ne ñu ngi koy nourrir te boobu ba léegi ñu ciy dundee yaakaar jàpp naa ne tasagul te gëw ma dina tas ba tax na loolu noonu bokk na ci li nga xamante ne tey na militaire libéré davantage ba pare tàggat bi nga xamante ne moom la ñu tàggat ci l'armée muy douzième bataillon gi mais niilul parce que armée nag mënoo faa génn bon mënoo faa génn bon bu fekkente ne da nga fa dem ak éducation sa éducation dina renforcer wu bu fekkente ne da nga fa ak euh, patriotisme engagement républicain yooyu yëpp day nekk loo xamante ne day nekk ci yow parce que un militaire aujourd'hui tey suñu doon waxtaan maag yow waxtaan lu mu riche riche riche lu mu neex neex neex su benn militaire libéré ñooy bu présenté wu pare nañ ci yow donc solidarité boobu noonu te kenn ku ci nekk ci ñun am na benn foi bu nekk ci yow am na benn détermination bu nekk ci yow am na benn worma bu nekk ci yow boo xam te da ngay bëgg continuer di ko mettre au ñoom ñëpp euh, bokkuñu ci ñi nga xam ne am nañu absence réinsertion am foo jàpp après la libération donc état temps yële mu woote en tout cas euh, voilà maanaam dafay jëlaat ay homme de tenue ay en tout cas takk der est-ce que yéen ça concerné yéen les militaires libérés. parce que le fait ñu woote waat pour li nga xamante ne moom mooy kaaraange wu réew mi. ñun dafa nekk décision boo xam dañ ko sax proposé woon à l' état du Sénégal notamment au ministère des forces armées au ministre des forces la présidence ainsi qu'au ministère de l' intérieur yooyu yëpp nekkoon na ci proposition yoo xamante dañ ko bindoon ci bataaxal mu yàgg trop nag ñu jàppoon nañ sax suite favorable du ci am mais keroog bi nga xamante ne jël nañ décision bii nii mu doon loo xamante ne nekk entré na en vigueur depuis le 1 juillet mu nekk loo xamante ne lu salutaire la ñun on on on a on a aimé cette décision parce que xam nañ ne aujourd'hui le fekk que ñu jël yenn contingent ñu rappeler leen dina am ay signification yu bari non seulement benn parce que contingent yi ñu fi woo mooy contingent 19 2019 une 2020 une 3 ak 2021 mu nekk loo xamante ne jàpp naa ne dafa nekk loo xamante ne lu c' est très très sànq bi ñu ci waxtaan maak yow rek en koy wax ñu ngi ci doon waxtaan parce que décision boobu li ëpp solo mooy au delà de réduire euh, chomage bi dafa entrer dans le cadre de renforcer n'est-ce pas la présence militaire te dafa nekk loo xamante ne lu am solo la ci contexte bi nga xamante ne moom la ñu nekk parce que tey bul fàtte ne tey déjà bien avant tey amoon na li nga xamante ne moom mooy euh, les retraités militaires dañoo gelé woon li nga xamante ne avait été gelé seen seen kii retraite loolu ñëpp xam nañ ko donc yooyu yëpp dafa bokk ci ay euh, situation yoo xamante ne maanaam suy am xel war naa mën a dal ci par rapport à beaucoup de parce que retraités yee dañ doon dem ñu ne noonu dañ leen téye pour que ñu mën a gunge jeunesse bi nga xamante ñu ngi ñu te ñu ngi leen war a woowaat accompagner leen tuuti en terme d' expérience mel donc loolu dafa nekk loo xamante lu am solo donc décision bi ñëwee on a la décision on a la décision ba pare encouragé l' état du Sénégal également ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñoom ñoo ne ñoom ñoom la ñu woo par contre li nga xamante ne moom moo nekkoon également suñu yéene mooy état du Sénégal en terme d' jàpp naa ne bi mu gelé retraite su amoon amoon na genn beneen mbir moo xamante ne jàpp nañu su ci sukkandikoo woon en terme d' expérience en terme de formation dana nekk loo xamante ne dina am solo trop ñun si suñu proposition dañu waxoon ne su fekkente ne mënoon na xool état nag moo xam ne muy doxee ay mbiram ministère des forces moo xam ne muy yëngale ay doxalee mbiram ministère de l' intérieur mais ay proposition également il n'en manque pas il manque pas de proposition dañoo bëggoon de 2009 à de de 2010 de 2020 de de 2000 à 2005 contingent yooyu nga xamante ne ñoo fi nekk yëpp jàpp naa ne nekk nañ d'une importance d'une d'une d'une efficacité boo xamante ne. ça avec une bonne formation à l'époque. avec une très bonne formation waxuma ne formation bii nii baaxul de baax na mais formation yële ak formation yi nii jàpp naa ne am na am na une donc léegi fu mu ne nii l'armée est devenue beaucoup plus. légère bo jàpp moom pas pas pas à ce à point comme ni ñu koy mais cest dire Euh, contrairement ak ni nga xamante ne moom la ñu doon defee les formations yu nu mel jàpp naa ne ñooñu noonu il serait il serait très important ñu ñu ñu ñu ñu ñooñu noonu de 2000 à 2005 ñu jéem lañ jëli xool ba nga xamante ne ñoom dinañ mën a participer activement à la présence militaire. donc mais bien sûr parce que bo xool tey aujourd'hui le Sénégal n'est pas encore sorti euh, des violences hein il faut qu'on le dise Piaget saccagé euh, saccage édifice vitaux yi nii loolu boo ba léegi ba léegi ñu c'est c'est des scènes que nous sommes en train de vivre au quotidien mais donc lool lool nag il est important aujourd'hui que l'État également face à ce contexte sécuritaire euh, aussi volatile que état tamit euh, voilà comme ni mu ko xalaatee nii également mu nekk loo xamante ne dañ koy mettre en valeur également l'autre chose il faut pas oublier également que la sous-région également est totalement déstabilisée loolu il faut qu'on le dise par la présence également des djihadistes ak coup d'état yi nga xamante ne ñu ngi koy dégg par-ci par-là c'est aujourd'hui fragilité dafa am dans la sous-région loolu il faut que les gens l'acceptent donc coup d'état yeeg yu nu mel donc compte tenu de éléments yooyu yëpp réajuster effectivement l'effectif dafa nekk loo xamante ne lu obligatoire la ba pare nekk loo xamante ne lu impératif la. préparer la riposte quoi. mais mais prévoir loolu c'est important. un militaire su fekkente ne da nga nekk patron euh, chef de troupe euh, euh, yu nu mel il faut il prévoir éventuelle situation. on sait que quand même maintien de l'ordre police la ak gendarmerie est-ce que anciens militaires yi mën nañ defar reconversion boobu pour mën a jouer rôle boobu comme il se doit. gis nga aujourd'hui contexte bi ñu dund nii dina ñaanuñu yàlla ñu àgg situation boobu mais face à des terroristes des gens qui n'hésitent pas. jël ay cocktail molotov di leen jël di ko di ko dugal ci ay ay bisu tata ay ay ay ay di këpp ay oto di këpp ay camion di di di di yàq ay édifice mais il est important aujourd'hui de faire sortir l'armée pour rétablir l'ordre c'est-à-dire il faut pas que les ñu nekk fii naan ay non non gis nga légèreté bu ëpp baaxul day déstabiliser réew L'État doit être ferme. C'est vrai qu'ils sont fermes, mais ils doivent renforcer davantage cette fermeté pour que l'ordre puisse être rétabli. Une... Parce que quand même ku jël cocktail Molotov sànni ko ci oto bu yëpp ay nit ñooñu bu amee une réaction mortelle entre guillemets c'est pas ça devrait se comprendre. non y a pas de guillemets il faut que les gens disent les choses telles quelles ku jël cocktail Molotov jël ko sànni ko ci biir oto kooku c'est un terroriste c'est un terroriste ak fu mu mën a far bu dee ak fu mu mën a dëkk. dëkk bu mu mën a cosaanoo quartier bu mu mën a dëkk bu fekkente ni ci parti politique la parti politique boo mën a bokk tu es un terroriste et l' doit traquer te heureusement le ministre de l' a été ferme sur ce point en disant que l' va les traquer dina leen jàpp avant de les remettre à la justice donc loolu c' est important aujourd'hui il faut également que l' état au delà même parce que l' état sax il est conscient de ça renforcer, renforcer il, faut, il faut plus de moyens, il faut plus d'infrastructures, il faut plus d'hommes pour prévenir, à, à, à n'est-ce pas, prévenir les périls, périls sécuritaires. Loolu c'est d'actualité. Donc aujourd'hui le Sénégal moom mooy le seul pays boo xamante ne en termes de stabilité tey moom la ñuy ci moom la ñu ndamoo au niveau au niveau de l'Afrique et du monde également en termes de démocratie en termes de stabilité donc loolu kenn du war koo seetaan mu yàqu ci loo xamante ne ci ay naq saxandaan kese la ci ay nit ñoo xamante ne xëy na peut-être seeni i mbirum bopp dong moo leen tax a jóg du programme lañ lay wax du du du amul benn acte boo xamante wala benn discours boo xamante ne di nga ko mën a dégg mu nga jàpp ne lii discours buy jëmale réew kanam la donc ces discours agressifs ces discours va-t-en-guerre c'est des discours yoo xamante ne l'État a très bien fait de prendre posture de prendre les les n'est-ce pas euh, les devants pour que effectivement mettre ce pays à l'abri donc c'est important. est donc force occulte yi ñu doon wax tey yow jàpp nga ne loolu am na ci réew mi ba tey. man li ma gëm li ma gëm l'État on n'est pas plus informé que l'État force occulte yooyu depuis bi ko État du Sénégal dalay wax ba tey man dama jàpp ne dafa am. parce que au vu de ce qui se passe tey aujourd'hui il faut comprendre aujourd'hui que lii xew ni yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp. nekkul loo xamante ne simple manifestation kese la du ay jàpp ma ne ay nit citoyen sénégalais bu bëgg réew dana def acte yu nu mel gëw ma loolu. des bus tata le bien privé quoi. des biens privés des biens publics xamoo sax li ngay yàq ak li nga dul yàq xamoo li li li c'est-à-dire ñoom mënuñoo sax xàmmee. mënuñoo xàmmeliku mënuñoo ràññee li nga xamante ne moom mooy kii y' a pas longtemps on le dit barki démb fii euh, ana ana ana ana manifestation ak nangu pochetu jaamur on l'a vu vécu. man dama dama j'ai pris la décision de ñi ko jàppoon il faut pas le laisser qui on le prend on le remet à la gendarmerie c'est ce que nous avons fait parce que les citoyens sénégalais c'est comme ça que il faut patriotisme commence déjà par quoi par aimer son son pays parce que patriotisme au vrai sens du mot l'explication c'est ça la c'est ça bëgg sa réew mais patriotisme di lakk ay bisu tata ak ay cocktail molotov di agressé di violenté di violenté mais loolu c'est quel genre de patriotisme loolu loolu loolu loolu du patriotisme il faut être sadique il faut être sadique pour, pour, pour pouvoir faire, faire certaines choses. Et ces gens qui font ces choses-là, l'État ne doit pas négocier avec ces gens. L'État ne doit pas négocier avec des terroristes. L'État ne doit pas négocier avec des bandits. Il faut traquer ces gens, il faut les remettre euh, entre les mains de la justice. Et appliquer la peine maximale bi nga xamante ne dana mën a permettre mu ñooñu nekk exemple pour ñi nga xamante ne dañoo fas est-ce que lii yëpp du conséquence pratique politique président Macky Sall avec son opposition surtout. non mais dama malheureusement pour le pays tout dañ koo jël bu ko wéer ci mbirum politique démb en exemple tata bi mais il des gens yoo xamante ne ñu ngi def à travers des manipulations di wax ne c'est pas vrai yu nu mel alors que nous ñi nga xamante ne on a fait le déplacement au moins on a ren on a vu les gens de la police scientifique de la section recherche la section recette également c'est gis nga les éléments des forces de défense et de sécurité il faut les féliciter il faut les encourager parce que ku mën a dem tiim situation bu mel noonu ak situation bi nu mu mun a mel situation bi lu mu ni mu ni mu dramatique ni mu ni ñoom ñu mën a tiim situation boobu noonu di mën a def seen liggéey convenablement c'est des gens qu'il faut encourager ñiy wax ne c'est pas vrai ñooñu dañuy wax loolu leen neex dañuy kac dañuy sos dañuy wax loo xamante ne naka su noonu et puis état dafa war a tàmm dafa war a commencer loolu traduire leen en justice parce que ñooñu dañuy yàq xelu ñeneen parce que ku mën a taxaw wax ne loolu amul alors que la présence ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñoom ñooy police bi nekk section recherche waa ñu félicité leen encouragé leen comme ni ma ko waxee sànq ñooñu mën a taxaw def seen liggéey bu mucc ci ayib ci lu mel ne face ak situation boobu noonu ay nit loolu amul nit ñooñu doon wax amul ñooñu c'est des gens yoo xamante ils peuvent faire kooku woo ne du policier. mais boobu ñuy wax ne policier. mais un commissaire wala un policier am na ci période bii nii am na leen lu mu tal lu dul dem di exposé bakkan nit ñi dañu xalaat mais nañ ñu génn ci ban commissariat la bokk. un policier face à cette situation. mu ne moom tal na leneen tal na am am na leneen lum dem di yéeg ci ay tataan naan mu ngi dawal ak yu mais et puis am na ci yoo xamante ne sax c'est-à-dire mentir kenn terewu ko mais il faut sax booy mentir sax mu xaw a tane. donc est-ce que sa jàpp nga ne déjà tu connais la la défense ainsi de suite l'État du Sénégal a les moyens de faire face à cette tactique entre guillemets terroriste on peut l'utiliser comme ça pour vraiment ramener le calme et la sérénité dans ce pays. vous, vous, vous il faut comprendre gis nga ceux-là qui pensent que l'État n'a pas assez d'effectifs n'a pas les moyens c'est c'est méconnaître l'État c'est méconnaître l'efficacité des forces de défense et de sécurité vous comprenez aujourd'hui qu'il y a un maillage au, euh, au niveau euh, au niveau du terri territoire national tey boo xoolee par exemple au niveau au niveau des frontières telles que euh, le Mali ak yu nu mel mais il y a le, le quatrième bataillon moo fa nekk di ñuy liggéey liggéey bu am solo loolu c'est-à-dire les gens oublient certaines choses même au niveau tey jii nii de li nga xamante ne tey avec la naissance nouvelle de l'école euh, de la marine nationale boo xamante ne tey boo xool moom moo ñëw tëj li nga xamante ne moom moo nekk les les écoles yi nga xamante ne moom lañ doon ce n'est pas pour rien que ñu jël un homme aussi expérimenté plein d'expérience le général Sène que nous saluons au passage il a été conseiller en défense moo tax tey suñuy wax ne euh, réew mi Euh, nit ñi mën nañu ko déstabiliser mën nañu ko mettre au kawa c' est méconnaître l' état c' est méconnaître des généraux qui sont sortis des écoles de guerre expérimentés intelligents formés tribord ba boor ñu former leen ñu am xam-xam comment des gens de rien du tout peuvent-ils maîtriser ces quand on prend l'exemple de de de de quelques pays de, de voisins yoo xamante ne il s'est passé des choses mais aujourd'hui regardez l'état du Sénégal l'armée sénégalaise a réussi aujourd'hui à remettre l'ordre et la stabilité dans ces, dans ces pays-là. Donc aujourd'hui, il n'y a pas encore péril en la demeure et je sais qu'il n'y aura pas péril en la demeure au niveau, au niveau de ce pays. Les gens seront traqués, ils seront, ils attrapés, ils seront remis à la justice et de sévères conséquences doivent leur être infligées. xanaa li may wax rek mooy le ministre de la jeunesse dama koy lancé waat un message suñu xarit la suñu frère la il est jeune li ma koy lancé waat message mooy. les militaires libérés waxoon naa la ko dama la koy waxaat les militaires libérés de la région de Fatick ont été formés en éducation financière ils ont leur terre am nañ xam-xam bi li ci am solo mooy nañ leen jàppale ñu am li nga xamante ne moom la ñuy def foofu noonu ils ont des projets boo demee Saint-Louis avec les coordonnateurs le coordonnateur bu fa nekk ils ont des terres ñu ngi góorgóorlu def lu ñu man boo bëggee mu def dara nañ def Mboumbaay ñoom Mboumbaay la ñuy financé. non non non non Mboumbaay moom bu ñu ci xaar militaire libéré du boo demee également à Thiès le coordonnateur de Thiès que je salue au passage qui est en train d'abattre un travail extraordinaire Mamour Diagne je te salue au passage je te cite nommément parce que le travail est limpide très propre extraordinaire l'agence pour la réinsertion sociale des militaires le ministère de la jeunesse bi nga xamante ne moo yor Prodac koy ñaan chaque jour di ko ko proposé mooy Prodac. na ko jël jox ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy l' agence pour la réinsertion sociale des militaires le général Khar Diouf le directeur général le directeur no mais ñooñu c' est des doo dégg ne armée doo dégg mukk ne un général de l'armée wala kii kii na xaalis doo ko dégg mukk bu ñuy wax politicien la ñuy wax te kii fa nekk nii le général Khar Diouf c' est un militaire un vrai militaire un militaire au vrai sens du mot comme ça donc li ñuy wax rek mooy Prodac dañ ko waroon jël jox ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy agence pour la réinsertion sociale des militaires nga xamante ne reconversion bi réinsertion bi mën a nekk carrément une réalité les services yi nga xamante ne ñoo fi nekk le directions yi nga xamante ne ñoom ñëpp dañuy def ay recrutement que ce soit COUD AIBD fu nu mel doo mais nañ ci boole les militaires libérés ils ont la compétence de la sécurité ils ont l'intelligence de la sécurité ils ont le courage la détermination et leen sant bu baax ba beneen yoon ak beneen invité fii ci senego point com jërë ngeen jëf